ma lay wax nga ma tamit ci waxu ci waxu grand théâtre nu mbir bi tëddee foofu grand théâtre xam ngeen président de la su ñëw ci xew daanaka ñun même suñu garde corps yi doo leen gis ci photo yi ñoom ñëpp dañ leen di évacuer suñu protocole rek moo fay nekk te kenn benn ji nekk fay nekk président dafa ñëw ñu woo ma ne ma naa ànd ak madame le ministre bu may jaajëfee au passage ñu dem gars yi nañu nañu taxawee nii ñu taxawee noonu président ñoo wàcc ci otoom. ñu nuyu ko dugg ak moom ci stand exposition yi ñu ànd ak président visiter génn foofu protocole bi yóbbu ñu fu ñuy wooye salon présidentiel man musuma musumoon dugg foofu ma dugg toog mu am président bi am ministre bi ak man ak euh, je crois photographe bu président de la république ak bien sûr bi ak sécurité bi ñu ne dañuy dem ci salle bi ma ne ah, président maa ngi jégalu ah, dama am ay gan mu ne ma ah bon mu ne ko waaw mu ne ko damay invité Khalifa Sall moom mooy maire honoraire bu Dakar damay invité tamit Soham El Wardini moom moo tax tey bés bi yàlla baaxee ñu ko tey Sénégal mu ne ma ah bon ok ma ne ko damay invité tamit sa mag ministre d'État président conférence Yewwi Askan Wi mooy Habib si ma bëggoon rek ngeen nuyoon te balaa ñu dem ci salle bi mu ne ma ah ñu dem woo leen ñu ñëw. ba ñuy dugg ak ba ñuy génn matul ñaari minute Khalifa Sall ci gàttal moom waxul dara Habib Sy su ma juumul am na lu ko président wax ci ay kaf mu ne président ah yow xam nga kuy Habib Sy Habib Sy bu nga xamoon moo fi nekk ba tey loolu mooy fulla ak fayda bu nga xamoon moo fi nekk ba tey président xaw a ak moom ñuy waaj a dem ma jàpp loxo président ma ne ko président ma bëggoon leeral benn wax mu ne ma ah lan la noonu ma ne ko appel bi du sa appel suma bos la maa ngi lay jóglu nag ci kàddu yi wante ma bëggoon wax ci leer fii man ma lancé appel le 26 sept le 26 janvier 2023 président ne ah monsieur le maire de Dakar day wax na dëgg lii appelu Barthélémy Diaz la mën na leen appel bi lenn lay ñaan yàlla mooy yàlla na yàlla tàpp xol yi dellu siwaat xel yi ñu mën a toog ñu waxtaane Sénégal ak ëllëgu Sénégal ma ne ko président am na loo bëgg am am na lu ñu bëgg añ toog waxtaan maintenant nag ma gëstu côté Habib Sy ma ne ko président Habib su ñu waxtaanee ñu am 20 points su ñu d'accordulee ci 20 points yëpp na ngeen ko déggee noonu ça veut ñu ñëpp matuñu kilifa donc man lu may ñaan yàlla mooy su ñu génnee ci lii yëpp ñu mën a toog ñu waxtaan. ndax ñu bokkul heure bi ñu mën a waxtaan seen dossier ndax ñu mën a bokk ñu nga xam ne ni ñu ngi leen bëgg a galgal te ñëpp xam nañ que tey ci dëkk bi y a des c'est pour éliminer des gens loolu mooy dëgg parce que ñu laay wax ci ñun ko waxtaanee ma ne parce que man am na lu ma jàpp ni que loolu dafa c'est de la c'est de la surenchère politique.